neexul ba neexul waaye Cheikh Thierno Diallo ñàkk la am wuur tay bi musu ko organiser Mbacke mm-hmm. am mm-hmm. dañuy wàlli mm-hmm. ñu may leen ca temps d'antenne mm. dafa am ñu ko moom woote ko woo ci état état indi participation jeex na léegi nag suñu nee dana am ak du am loolu sëriñ ba ko daan organiser ak ñoom ko daan àndal ñoom ñoo koy xam ñoo koy wax dëgg la jamono ñooy dëgg la bu ci état bëggee dugal dana nangam ko nangam moom na teel a jóg. bu bëggee jiitu ci loolu. Ah. wala moom mu nekk ci devant la scène. loolu day ah. xaw a compliqué. day waaw ah. day sol aw dàllam dem ca ña koy doxal. <laughs> ñu wax ko ñoom niñ ko bëggee niñ ko bëgg a defee. waaw ak moom wax ci xalaatam suñu noppee dañ tëral dara. <laughs> buñ tëralee dara du état baa koy génne. dëgg la ndax duy fëpp. <laughs> sëriñ baa koy génn wala xalifa mbaa port parole ba mhm. jàmm na ñooy mhm. waaw mhm. muy lu am solo waaw waaye nag diggante boobu oustaz dafa am tuuti ak sew-sew gu metti am na sax ñoo xamante ne fi mu ne ñi ngi leen di coow ci internet beeg télé yeeg rajo yi di leen wax lu nekk ndax dañoo dégg ci seen i kàddu ne dañoo jël position wane ko ci eh, lu jëm ci màggal geeg yooyu te muy eh, mbir moo xam daa mel dafa sensible ci bépp chroniqueur wala kilifa goo xam ne dangaa war a yëkkati kàddu. de sëñ Mbàkke hmm. boo yëkkati kàddu ci loo <laughs> yow yow doxaloo ko hmm. moomoo ko hmm. organiser woo ko hmm. doo kilifa ga doo porte parole ba ba noppi nga bëgg naa dañ ko war a takk dañ ko war a defar duñ ko duñ ko war ah mais mais oustaz réew mi kat nit ñi dañuy wax seen xalaat ci lépp na ah, ah, ah, euh, euh, maanaam fi ne kat état bi gaa yaa ngi ciy wax seen xalaat xanaa looy xalaat xalaat see gaa yaa ngi ciy wax seen xalaat màggal yeeg yooyu nag gaa yi wax ñu ne bu leen fi waxee nag looy xalaat xalaat war ngaa xam suñu penc mi mooy lan waaw kon kon aspect boobu moom moo laajut loolu voilà waaw xam xam xamum penc de baax na ak a baax <laughs> baax na de ak a baax mhm. ndax yëf yi mhm. seetlu ko rek. Mm-hmm. ginnaaw ba bañ amatul ba ñu amee indépendance ba léegi. Mm-hmm. dafa am ñuy tër ñuy organiser màggal. Mm-hmm. dëgg la am ñuy organiser gàmm. dëgg la ñu ñëw lii xew. Mm. muur ko ji jóge fële. Mm. ne dañ ko war a fomm. Mm. moom moom moom kañ la daan wax nañ ko war a def ak duñ a fomm. kañ lan la ci. Ah, kon yow da ngaa war ni cell léegi ñi nga xam ñoo ko organiser. bu état bëggee lu leer naññ mu teel a sol aw dàllam dem. ne luy seen xalaat ci gàmm gi. luy seen xalaat ci màggal gi. ñoom dañ ko jox seen xalaat. buñ sa noppee duñ ko waxloo moom porte parole mooy wax ne sëriñ bi nee na. jàpp na ñooy. dëgg la ndax fi mu ne loolu du problème. déedéet du problème du problème de. waaw te itam des na ab diir. waaw <laughs> li mu li mu li mu boole bari na du poroblème te des na ab diir. waaw te itam euh, mbir mu nekk rek ni nga ko waxee dafa am euh, noo xamante ne noonu lañ koy déggee. noonu lañ koy comprendre. lu ko ah, mooy xaw sa baar rek. waaw mën naa indi mën naa indi ak réeroo daal ah. jeex na am na solo de kon de xam naa ñi nga xam ne dañ ci doon joxe seen i yëf di ko comparé ak aj màkk gi. am na ministre bi nga xam ne moo fi yoroon njàng mu kawe mi moom sax bari na ñuy wax ne li mu wax xam naa làkku tubaab bi daal xaw naa doy waar encore mhm. da nga ciy wax ba noppi ne nit ñi dégguñ dégguñu maag comprendre uñ fi may waxee dañoo euh, détourné samay propos euh, wala dañ koo sensé euh, ndax itam dafa mel ne nee na waxut ñu annulé ko waaye lim lim doon li mu doon wax message bi mooy buñ demoon ba di ko def ñu organiser ko comme ni ñu organiser ak gi wala wala wala façon yooyu loolo looloon noo koy jàngate wala wala daal bañ cee dugg daa gën a wóor rek sëñ Mbacke aj Màkka gële waa Màkka ñoo seet nañ ko organiser. du Afrique. du waa volta waa Makka ñoo gis ne. nii lañ ko war a defee. ñu ñu ko. waaw ba mu nekk nombre bu néew. defee ko noonu defee ko noonu. defee ko noonu. Mm-hmm. waaye ñoom ñoom seen bopp ñooma. Ah. Mm-hmm. lii tam nañ ko bàyyi seen borom rek. incha allah ñoom danañ fax ba yàgg. Mm-hmm. daañ wax lu leer loo xam ne suñ mënta suñ mënta xaat dana wax ne. nii lañ koy doxalee. dëgg la. waaw bu dee gàmm ga sëñ sëñ Babacar Si dana wax ni. nii lañ koy doxale dëgg la léegi nag ñi bëgg a leen nag. bëgg jiitu jaasi ca mbar ma. Mhm. ñooñu ñooy am problème. waaw bu leen fa jaasi fekkee du baax. bu leen fa jaasi fekkee du baax. <laughs> waa ngi dëgg de am na solo lool te itam loolu. wax dëgg yàlla ku ciy tiit daje gi jàpp ne tawat ji dafay tasaaroo sa xel mën naa dal.